Argentine soxla ngeen été 2019 bu neex maasallah ni ngay def ba am été 2019 bu neex laa lay bëgg a wax ba ca jiitu amal ay bagage yu baax yu wóor yu rafet yu yomb yoo xam ne ku ne ko jàkk xam ne original nga ci yor ki ko yor te doy ma ci ma wóolu ko ci ndaanaanu boutique yi moo di Sylla nga xam ne Argentine ñëpp nangu na ne ku fa dugg sa jaaxle jeex sa soxla tuxu Sylla boutique adresse bi benn la mi ngi onse Galeria Mega Compra Sylla boutique ubbi leen ñaari local yu jàkkaarloo benn bi 81 beneen bi 89 bagage yu rafet lool taaru ci am garantie ay verre mooma ci doy rafet na yomb na ay modèle yu amul fenn ay cap bépp façon ak bépp couleur boo ci bëgg dewal gaaw ci suñu boutique saak selfie montre yu góor ak yu jigéen ay seen acero bisutera lépp yaa ngi koy fekk ci suñu boutique li ci gën a neexati moo di ngir bëgg a jënd jaayaat loolu li mën naa nekk boo demee ci suñu boutique mu jaay la prix en gros bu xéwale suñu boutique li yëngu foofu yow bi nga xam ne yaa ngi Argentine ak foo mën a nekk ci Argentine taay déplacé wu ngir ñëw ci boutique bi lépp loo junni itam mën na la koo indil ba fi nga ne ma ne ko sur la boutique yaa xew ki toll ci di ko jéem ak i ka man ba noppi du lu benn ku ci bëgg a jëflante ak ñun sunu ay numéro ngi 11 37 95 36 26 11 37 95 36 26 ak Chula boutique ñi bëgg lu baax ñëpp xam nañu fa ñiy jënd lu baax ñëpp fa lañ koy jëndee Chula jaax la jeex na ci sama été nan lay def ba mu neex cey Chula boutique wax ji naa bëri lool ci penc waaye ku ne bu wéetee xam nga que la mën Chula boutique gaa ñi doo seen maas yaa leen mën. siempre compro acá porque es barato los chicos me atienden bien así que me voy conforme siempre vengo a, a ver acá al amigo. Tiene mercadería, sí, e innovadora, diferente a lo que hay en otros lugares, así que por eso siempre vengo a verlo acá, Sila Boutique. waaw ah, bi nga ñëwee Sila Boutique lan nga fi gis. waaw ah, Sila Boutique moom sunu wëllare la suñu xarit la mu yor ay bagages yu rafet macha allah ci wàllu kab yi nga xamante ni moom lay yëngu muy kab yu nice yoo xamante ni yaakaar naa ni fii rek ko mën a amee ci Sila Boutique ak ay verres yu am solo yoo xam macha allah qualité yu yoo xamante ni mën naa ni dañ bëgg lépp ñu fii lañ koy jëndee ci Sila Boutique. muy nit ku baax koo xamante ni euh, loxoom tawféex na te bagage yomb na macha allah waaw. Ah, ci wàllu ceinture yeeg montre yeeg ak saag yeeg yëpp wax dëgg yàlla moom euh, tawféex daal lañ ci gis moom waaw. bagage yi daal yow gis nga ci tawféex. waaw gis nañ ci tawféex bu baax a baax wax dëgg yàlla. prix bi yomb na wala ah, prix wax dëgg yàlla moom prix bi yomb lay jaay moom def ci xéewal yu baax moo tax ñu bari daanaka dañuy ñëw fii di ko fi wut si moom. waaw moom nag muy suñu wala rek ñu jëflante moom ci lu baree bari. Ah, ci wàllu cab yi ngay gis nii ak verre yi ngay gis nii wax dëgg yàlla ñun dañ ciy moom ah, muy koo xamante ni daal ku yaatu ku ubbeeku la ci biir dëkk bi waaw ñu bëggoon nag suñu mbokk sénégalais yi ñoom ñëpp ah, ñu faral di ñëw ci Sila ngir am ci cab yu rafet yi ak verre rafet yi ak ceinture yi ak saag yeeg yëpp wax dëgg yàlla moom macha allah daal you mellow